24e édition FIARE internationale nekk na ab occasion pour ñi di éleveurs yi ñu daal di présenter seenub njur FIARA bi ñu organisé ñu ci sant di ci gërëm waaw ñëw nañ ci FIARA ak jàmm ah, teew ci ni suñuy xar di ko présenter fii mooy damaa ñëw exposé pour indi xaru laadum yi fii ci FIARA bi chaque année nag ma ñëw ci FIARA bi indi fi xaru laadum waaye nag ñoom li ñuy xamle mooy par rapport ak ak yi weesu clients yi taxuñu ko ñëw noonu. Euh, clients yi moom ñëwuñu nag noonu nànk-nànk li ñëw quoi par rapport avant quoi daan gën a. clientèle bi am nii moom ndax yeneen année yi xam ni moom lañ daan ñëw lu bari da nga daan jaay lu bari ci xar moom. mais léegi moom am nit ñi aliment bu seer beeg yooyu dañ koy dawaale moo tax xar yi gars yi wàññi ko bu baax. waaye itam ñu doon wax ci yokkuteeg aliment bétail bi. ndax moment bi Sénégal aliment dafay seer trop. muy ngooñ muy aliment de bétail bi na aliment moom bu wàññee mboq wàññi sooda blé lii ñi xam ne moom la ñuy bu ñu ko wàññee gars yi defar fii aliment dinañ mën defar aliment bi mu yomb torop waaw ah, ministre de l'élevage moom ñu koy jàpp ñu koy ñaan mu jàppale éleveurs yi ndax sonn nañ xar moom dafa metti quoi ndax boo xoolee wàllum vétérinaire wàllum paay bi ngay ut xam nga ak lépp daal la ci litière bi xam nga lépp dépense la quoi mu ñëw nañ jàppale moom wàññi aliment bi dina baax ci ñun. mu nekk vingt quatrième édition fiara internationale ñii di éleveurs itam. ñëw fi ngir exposé seeni ay jur lu ci mel ni xar nag wala bëy waaye nag ñuy sàkku ci jëwrin bi yor wàllum élevage mu gën leen bàyyi xel ñeel wàllum aliment